mbokkee xaritu internet yi ñu ngi leen di ziar di leen wax asalaamaaleykum te di leen wax bienvenue dans votre émission édition spéciale et dans cette édition spéciale que nous avons le plaisir de recevoir madame le maire conseillère à la mairie auprès du maire monsieur Serigne Mboup maire de la ville de Kaolack tey nag ñu fas yéene sekk moom waxtaan muy jigéen ju jàmbaare mu nekk une femme d'affaires nekk une femme de développement très active dans le sociale rawatina ci gox bi muy nekk di wuyu ci Néné Balde avant tout dama koy sant gërëm ko ci ni mu ñu yombalalee jotaay bi vraiment mu nekk ko accessible tey permettre ñu mun a waxtaan ak moom ci affaire bi nga xamante ne dafa concerné ñëpp maa ngi lay wax asalaamaaleykum di la bàyyi nga nuyu suñu internautes yi nuyu suñu auditeurs yi suñu lecteurs yi ak suñu téléspectateurs yi nga xam ne ñu ngi lay seetaan bu ko defee ñu reveniraat ci question yi. maa ngi lay fay Souleymane euh, di tànn bi nga xam ne tànn nga ma ko euh, ci yaakaar gi nga am ci man ci li nga xam ne moom nga bëgg a taataan ci municipalité bi ak ci li nga xam ne moom mooy sama profile en tant que tel. Euh, di nuyu mbokk internet yi di leen wax ne seen rakk seen euh, xarit seen mbokk moom moo leen di nuyu di conseillère municipal toogal leen fi yéen askan wi yëpp. di représenter quartier bi nga xam ne moom mooy Daaru Salaam de passage di nuyu sama délégué de quartier Pa Omar Thiam di nuyu waa Daaru Salaam yëpp ndaxte ameel naa leen njukkal parce que tey jii suñ toogee fii naa neen ne conseillère municipal grace à Daaru Salaam la parce que waa quartier ba suñ ma joxutoon bopp duñ ma mën a def ci liste yi ba nga xam ne tey dina répondre au nom de la conseil municipal de Kaolack tey ji suñ doon wax sa parcours fi nga jaar ba nga xamante ne tey nga mën a nekk conseiller fi nga jaar aussi ba mën a adhérer ci ànd nawle coalition bi nga xamante tey actuellement moo remporté élection yi gagné ki fi nekkoon nekk ci municipal bi tey suñ doon wax sa parcours tey présenté ñu nen ne lan mooy parcours am fan mooy jaar-jaaram tey ba nga xamante ne agsi na fi mu agsi ci wàllu politique. dina gudd ndax xëyuma rek politique euh, xam ma politique fekkuma kuy politique fekkuma sama yaay di politique peut-être. ba mën ci fës mais fekk naa ko mu am laamisoo ak koñ ba mu dëkkaloon ñëpp xam ko mu xam ñëpp euh, ma jàng ba niveau troisième euh, dem ci benn école bu ñuy wax Iqra Babacar Diak tey mi nga xam ne moom moo jiite euh, diriger encombrement bi ci commune de Kaolack moom moo ma njëkk a tàllal loxo ci politique dugal ma tax ma dugg ci ay organisation yu bëri parce que boobu à l'époque temps Ablaye Wade la woon ma nekk xale boobu aw ma sax carte d'identité bu ma amaan li ma daan def sama yaay moo ma daan abal carte d'identité am laay teg bu ñu amee aide yu ñu ma war a jox wala ñu am lenn lu ma loo xam ne sama tur moo ci war a dem sama yaay yaa awa moom la ci turam doon nekk kon loolu nekk loo xam ne lu ma marqué la loo xam ne du ma ko fàtte ba mukk te damay sawar ci toog ci di ko expliquer pour sama moromu ndaw yi wane ne maanaam judduwoo ak leader mais mun nga juddu jàng nga forger ba nga xam ne di nga doon leader ba tey jii nii euh, ñu ànd ak Ndeye Khady Diop Ndeye Khady jóg fii comme Ablaye Wade bi mu fi jógee ma def benn relance toog nekk ci école boobu di jàngale di jóg di daanu ci kaw loolu euh, Babacar Diak boole mag ki ñuy wax tamit Ndeye Lobe muy ma dem Diawara moom tamit adjointe au maire la moo chargé social euh, kooku tamit participer si sama dund lu bari parce que tey jii moom moo ma booleeg euh, monsieur le maire moo ma booleeg euh, madame le maire Yaay Fatou Diagne bi ñu yore plateforme des femmes de la région de Kaolack foofu laa njëkkee ñu nekk di dem di dem bañ ne sëriñ dafa soxla Kaolack euh, ñu ñëw ñu présenté ma ko ma gis ko tamit mu nekk nitu vision loolu moo ma gën a impressionné si moom parce que man su may topp nit danga may ëppalee dara soo ma ëppalee wut dara du ma am dara loo xam ne mooy tax ma bàyyi sama temps di la topp alors ñi ma booleeg moom nag nekk nit ñoo xam ne samay nit yoo xam ne lañ tey fu ma mënti toll ci politique dama naan ñoom ñoo ci participer parce que ñoom ñoo ma génnee ñoo ma tette man tamit ma dëgër ba dugg ci ay organisation yi ñuy wax APROFES APROFES tamit ñoom me temps lobe ne fa lobe si soxo ma ma intégré foofu ñu may defal ay formation ci leadership di ma defal formation yu bari yi nga xam ne tey moom moo mën a tax ba ma taxaw ba gis ku mel na sëriñ boobu mun maa insérer ci liste yi ba ma mun a nekk conseillère municipale donc kon nekkut parcours boo xam ne bu gàtt la mais dama ko tënk wane ne maanaam ñun ndaw ñi mën nañ bokk mais pour nga bokk ci biir mag ñi ba intégrer sa bopp tamit ci kaw yar ak teggin ak jàng parce que jàng bi mooy nekkul nga dem école yi wala nga am master wala dara jàng bi mooy nga ñëw xool mag ñi ni ñuy doxalee nga topp seen gannaaw orientation bi tam mooy nga gis ne ah lii kat mag bi def na ko te moom bàyyiwu ci xel ah nga nga nga nga orienté ko ndànk woon ko ne ko sama yaay nga sama nanga nga mais man tamit war naa mën a toog ci instance décision yi mën war naa mën a bokk fi ñuy décider parce que sama loxo set na mais loxo boobu nag yaa koy raxas ba mu set nga mën a bokk ak mag ñi ndab bi nga xam ne moom la ñuy lekkee loolu moo ma intégré président Serigne Mboup mu dëkk li nga xam ne fekk si ma fa jour ma koy njëkk a xam dañ ma booleeg moom ak téléphone man en général ku ma ciy àndal ku ne boo ne ma kaay ànd ak diw rek dama la naan anam fu mu ne na ñëw dëkk fi ma dëkk parce que foofu nekk na quartier boo xam ne daanaka leader politique yu bari duñ fa nangoo teg seen tànk na dafa nekk quartier bu mujjee sosu ba pare tamit li yàlla xam doy na ña fa nekk néew nañ doole te fii tey àddina bi boo amut koom meloo yenn melokaan yi ñu ci bari duñ la jege duñ la approché mais sëriñ melut noonu parce que fekk si na ma fa nawet suñ suñ premier gise mu ñëw foofu yëpp a ngi tooy ndox mu tombee mu taw ba sabet nit ñi naan fii kenn mënu fee dugg non monsieur le maire de président lañ ko doon wax doo fi mën a dugg nañ dellu maa leen ah fii de lay jóge di dem kon donc bu ñëwee ba fii dafa war a dugg sino ah ñu ñaanalante rek moom it mu dégg loolu jàll ñu dugg jour ba mu fa duggee ba tey xelam jógut ci quartier bi te grâce à dugub ma ko fa dugal moo waral loolu sëriñ bi fi autorité ñëwee sax naan ko nañ dem Daaru Salaam clinique day bi njëkk a def ci première euh, année Daaru Salaam la ko def mooy bësum setal bi état bi doon organiser bañ ko waxee fooy jël dafa jël Daaru Salaam daanaka tey jii ñu ñu doon wax sax daaru mbalit mais loolu déggatuñ ko grace à Serigne boobu loolu tamit euh, moom a booleek Serigne ñu ànd di politique mu doy ma nag lool parce que xam naa niti ambition la te ku bëgg dara la te ku nangoo liggéey la te man boo melee noonu rek danga may daal di doy pour ñu mën a ànd. waaw madame le maire ñu seetlu bu ba léegi aussi bi ngeen arrivé ba léegi tey euh, Sénégal Kaolack yi tey jox leen confiance jox leen mairie bi tey bu ñuy compter def ngeen fi ñetti at trois années yoo xamante ne tey jii euh, ci ñetti yi tey lan ngeen mën a wax ni tey bokk na ci seen promesse électorale te réussir ngeen ko lan ngeen mën a wax ni aussi tamit vraiment am na ci xamante ne nii euh, parce que euh, amagul ndax fu mu toll nii Kaolack moom dafa mel ni entre Kaolack waa yi ñenn ñi ak ànd nawle bi nga xam ne fa nga bokk am na benn frustration bu ci am. wala am na benn rupture bu commencé di am ndax élection yi nga xamante mooy élection présidentielle yi wone na ko ndax bu ñu seetloo ci élection locale yi ngeen am 35 054 voix yi nga xamante ne am ngeen ko ci municipal bi donc 51 2052 yi nga xamante ne am ngeen ko aussi ci départemental bi suñu ñëwee xool def par rapport euh, comparer ko par rapport ak élection présidentielle yi ñu passé ngeen génnee ay million joxe caution campagne ñëw donc am Euh, li nga xamante ni mooy treize voix ci Kaolack ni mu toll ñu gis ne carrément am na différence entre bi ngeen di jël mairie bi ak li ñu leen voteel ak entre aussi bi ngeen dem élection présidentielle c'est-à-dire c'est quoi le problème nit ñi échec la wala soit vote sanction la comme niñ ko defee woon ci ak AP ak nguur gi fi nekkoon. pour élection yi ñu génn ni ak maanaam ci ñu jógee différence bi loolu dinañ ko mën a expliquer parce que xam nga fii dafa am réalité politique boo xam ne. nit ñi dañoo trop politique maanaam tey lu ñu xam ci politique man ànd naa ak Serigne Serigne utal naa ko euh, mairie maanaam bokk naa ci ñi ci participer ci ci vote ba mu jël mairie bi donc tey jii Serigne boo xoolee ñi mu doon àndal ëpp nañ mille personnes te soo xoolee euh, ci mairie bi tey jii moom mënut fee dugal ci lu toll noonu kon xam nga déjà problème day am parce que nit ñun dañuy jàpp ne koo politique rek maanaam war na la di la jox dara chaque jour wala mu dugal la fenn foo xam di nga fa liggéey def na ko sélectionné nañ si différent quartiers ci xale yi nga xam ne mën nañ fexe ba ñëw fi volontairement ñi nangu woon volontaire ñëw tey jii peut-être ñoom ñoo fi des mais fii dafa am lu fiy dox li nga xam ne dafa am benn nombre de personne boo xam ne fekk nañ ko fi munuñ cee yokk loo xam ne moo toll noonu parce que ku nekk xam na ne fii euh, ci budget bi lañ leen di fay si à travers perception yooyu yow maire bi mujjee ñëw nii muy sëriñ ñun ñoo ñàkkee fo sant parce que mairie da daan nekk pour politique soo ñëwee da ngay pousse peut-être ñi fi nekk wala da ngay yokk yokk yokk yow ña nga àndal ba fii fees dell te te te te te maanaam kenn du ci wax dara mais dañoo ñëw ñun fekk résime bi lu bari changé loolu nag mënoo ci dara mu ngi jéem lu mën ñi mën a dugal fii mu ngi leen dugal ñi mën a dimbale seeni projet mu ngi leen di gunge mais xam nga Kaolack waaye yëpp ñoo ko votel moo tax moom mbiram day métti munut yomb te dama bëgg Kaolack waaye comprendre que ne bu doon sago euh, président monsieur le maire Serigne Mboup kese konoon jeunes yëpp dinañ liggéey parce que mu ngi koy defee ci nu mu mënee loolu moo waral sax relance su euh, Domitexca bi ñu doon def ouverture bi leen lundi passé barki démb kon kooku bëgg na ñëpp liggéey ci côté électorat yi nag ku nekk xam na ne Sonko de maanaam dafa dafa dafa dafa gañe maanaam daf dafa lu ma mën a wax mooy da yàq <laughs> bopp population bi da ci fa dugal ci ñoom Sonko mooy Jomaay Jomaay mooy Sonko donc loolu mu dugal ko ci boppu nit ñi ak injustice bi doon am population bi tamit rangé woo ko ci moom xeexalee ko voté massivement maanaam voté utile parce que président bu ba muy dem présidentielle peut-être kuy dem xeexi doon ne danañ ma gañe waaye peut-être bëggoon na dugg moom tamit ci làng gi jéem a xam lan moo fa nekk xam xam tamit comme mu ngi politique ba jël maire yi day dugg tamit ci làng gi xam présidentielle ah suñu amoon sens jàll tamit dinañ xam ne président Serigne boobu mun na doxal Sénégal parce que am na bopp bu ko mën a doxal am na am na xel bi parce que lim def ci Sénégal ah euh, mun naa ne bu ñuy lim tey jii ñi nga xam ne participé nañ seen dëkk duñ ko ci génnee ba loolu firnde bi koy wane mooy président bu ñëw dinga am ak moom relation loolu force la parce que liggéeykat la te loolu muy def suñ sañoon euh, am centaine de sénégalais yoo xam ne tey jii taxawaay boobu lañ taxawee kon tey boobaa mbëkk mi xale yi di jël ak yëpp da ngay am loo liggéey fii mais politique munu munut satisfaire ñëpp te loolu la ñu bëri réeree mbir mais euh, mag ñi nga xam ne ñu ngi ci kër yi te xam nañ xam nañ ko xam nañ philosophie am xam nañ fi mu bëgg a jëmee Kaolack parce que ñun waxuñu woon dañuy ñëw rek ci cinq yi peut-être ñu régler problème mu Kaolack ndax Kaolack ku nekk xam na ni mu tëddee problème bi li koy régle peut-être il faut état jàpp ci bu baax a baax ndax sëriñ kese kese kese sax yaakaaruma mu mën ci dara mu ngi jéem lu mu mën nag mais il faut état jàpp ci Kaolack te ñun damaa foog ne nguur gu ñëw gu ne dañuy xaw a fàtte ñun Kaolack ñàkk sens boobu lañ ñàkk sens moo taxoon nag ñu tànn sëriñ moom mi nga xam ne pour ñu teg ko fi mu mën ñoo dimbale ci Kaolack bu mënta def mu def peut-être xaaj bi Kaolack buñ yàkkamti nañ xam ne sëriñ dina liggéey ci li mu wax ne après du demaat tamit loolu peut-être wax na ko mais soo déggee ñuy wax conseiller pour nit ñi di la waxal ngay def di la tere ngay bàyyi di la wax ngay jàpp te yaakaar naa ne ñun moom mënut ñoo të te soo gisee ni muy doxalee population Kaolack waa buñ ko demandé waatee dañ koy wax na ñëw parce que tey jii résultat yam mën na tax Kaolack ne doya luñ parce que dafa war a àggali à l'horizon 2030 la waxoon ne programme am ci la mu def ko ci setal suqali sàmm setal bi mooy mu ngi ci assainissement bi ñu ñu ngi ci ku nekk gis na ma jigéen chaque jour mu ngi ci koñ yi muy noor muy nawet ñu ngi fexe Kaolack set ku nekk gis na Kaolack nu meloon avant ak nu mel léegi di nga xam ne ci setal bi ah am na am na euh, rôle buñ ci joué bu bu baax donte nag dëkk bi moo neexut a xaw a setal parce que boo balee keneen ñëw sànni ah du du yomb pour mu deñ il faut nit ñi mentalement ñu ñu ñu sensibiliser leen ba nga xam ne tey nit dina rusa lekk rek sànni ko ci mbedd yooyu tamit bu amee xëy na ñun dinañ bokk ci ville yi nga xam ne ñoom ñoo gën a set euh, sàmm bi mooy sàmm su li nga xam ne moom mooy suñu alal sàmm li nga xam ne moom mooy li nga xam ne moom lañ teg ci loxoom mu mën koo ñu mën koo toppatoo saytu ko ba nga xam ne askan wi lañ ca war a njëriñoo danañ ko ci njëriñoo euh, euh, suqali bi maanaam tey ci suqali bi euh, madame le maire Ndiaye Mbow Tall premier adjointe au maire mu ngi yore li nga xam ne moom mooy profem ci jigéen ñi pour formaliser leen fexe ñu am ay financement en partenariat avec la chambre de commerce tey loolu yëpp ci ci gi la parce que nit ki tamit <laughs> jàmm jàmmi poos tam <laughs> dara la de poos bi tam bu amul dara doo tal politique doo mën a def dara doo mën a tal dara kon donc loolu tamit monsieur le maire mu ngi ci kon mun nañ ne programme bi nekkul dañ koy def rek ci deux wala trois ans nga xam ne dina yemb ndax ku ne xam na Kaolack ni mu bindoo nekkut ville bu ndaw nekkut ville tamit boo xam ne ah neex na régler daal ci ay fan yu néew wala ay at yu néew nañ ñu may rek temps te xam ne Serigne Mboup euh, dina dina liggéey ndax soo gisee tey engins yi mu jënd dañ ko voté woon budget fii depuis deux mille 2022 mu génn indi na lépp mu ngi taxaw sur place déjà commencé nañoo liggéey kon donc loolu ñuy ñaan yàlla déwén ñu mën a am leneen lu ëpp loolu ba nga xam ne tey jii Kaolack dina am beneen xar te moom loolu la jublu te ñun ñii di ànd ak moom tamit loolu lañ ci bëgg. mais loolu mun naa jàpp ni programme la tey su ci réalisation suñu wax ci réalisation ci seen trois ans yi nga xamante ñetti at yi def ngeen fi tey jii lan ngeen fi mën a wax wala lan nga fi mën a tey souligner lu palpable loo xamante ne nii tey ci sept milliards neuf cent millions yi nga xamante ne nii mooy budget mairie moom ngeen voté def nañ lii infrastructure def nañ ci lii wala soit assainissement def nañ ci lii wala social wala lii ak lii en tout cas Kaolack waay nee nañu Euh, niñ doon xaaree Serigne Boub ak lif par rapport li fi nekkoon ak niñ ko doon xaaree mu defal Kaolack donc loolu euh, amul diggante mag moom ak Serigne Boub ba ñëpp nee nañ Serigne Boub ci ñetti at yi mu fi def donc def fi dara yow en tant que conseillère lan ngay toll ci loolu. ci trois ans yi ku nekk xam na ne assainissement joué nañ ci rôle bu am solo comme ni ma ko waxee mbalit amatu fi chaque jour euh, waa Promogène ñu ngi dem ànd ak équipe municipale bi. ak waa Dewo ñu ngi ànd pour rien que Kaolack mun a am beneen xar-xanam si set euh, ab état civil bi tamit euh, bi nga xam ne bureau bi ma toog jaabi dirigé ko ah moom ñoom tamit ñu ngi siy def liggéey bu am solo euh, parce que tey jii soo soxlaa extrait bu la neexee nga toog sa kër demandé ko ñu ñu nga am ko kon loolu tamit yokkute la waa boo ñëwee mairie tamit taxaw bi nga fi doon taxawaalu peut-être bu nekkee yow sa extrait wëruñ ko archive doo fi yàgg bu dee si si machine bi la ne da ngay ñëw ñu tiire la ko automatiquement nga dem am na fi euh, cinq officiers yi nga xam ne ñoom ñooy signé te loolu ah ñun fi lañ juddoo yaroo fi màggee fi mais mosuñ ko am boo fi daan déclarer sa doom wala nga soxla fi këyit di nga xëy fii peut-être trois wala quatre jours peut du du yomb waaye moom indi na fi ay xarala yu bees yoo xam ne tey jii moom moo mën a yombal loolu kon loolu tamit paa la ci suñu liggéey ndax euh, ñun ñoo ko fi def euh, ak tamit euh, comme li ma la wax ci poste de santé yi réfectionné nañ dix postes de santé yoo xam ne ci ci ci budget mairie bi lañ ko defee ba pare subvention yi ñu ngi ko fekkoon ci ci dix millions mu yóbbu ko à vingt cinq millions loolu tam yokkute la ci santé tey jii boo laajoon ñi nga xam ne ñoo nekk ci santé dinañ la wax loolu parce que démb rek ñu ngi woon fii ak médecin chef district yéen Seck di waxtaan ci affaire yi paludisme bi démb rek mu ngi ko fiy fàttaliwaat di ko leeral kon donc ñoom yëg nañ ci seen bopp te loolu tam ay paala ndax mënoo ñëw rek defandoor lépp loolu tamit ci suñu bilan trois ans yi la bokk AIC yi tamit seen sibvention ñu ngi leen koy jox ñi nga xam ne artistes yi la tamit mu ngi ciy def li nga xam ne moom la ci mën kon suñu suñu suñu suñu ay gi daal ñu ngi ciy def ci li nga xam ne moom lañ man ñu ngi ko ciy def. ku xamoon Kaolack tey ci wàllu administration nga soxla woon papier administratif fii ci mairie bi daana def trois jours donc loolu changement boobu am na li nga wax aussi tamit ci santé bi wax ko ci sport bi ci subvention yi artistes yi ak yooyu donc jusqu'à présent tey ba léegi amul benn euh, maanaam euh, amul lenn loo xamante ne ni tey jii euh, impacté na. ci seen programme par rapport ak population kaolackoise bi c'est-à-dire c'est le problème information bi dalul jàll wala soit niñ koy defee la Kaolackois yi dul yëg parce que Kaolackois yi foo dem dañ naan en tout cas defuñ fi dara bi ñu leen falee ba léegi defuñ fi dara te lii bilan la boo xamante ne nii euh, yaa ngi koy tudd léegi def nañ ko man ma seede ci benn ci digitalisation bi donc mairie bi loolu am na mais euh, lan mooy problème bi entre Serigne Mboup ak Kaolackois amuñ benn problème mooy li ma la wax rek dañoo trop politique boo gisee li tardel euh, dëkk Mboose Kumba jigéen bi yëpp politique la parce Euh, de de man mënuma comprendre tey nga am nit ku mel ne sëriñ maanaam pour nga gis ko du la jafe pour nga xelal ko du la jafe nga bëgg a toog ci biti lam def yëpp nga bëgg gas ba mu xóot suul ko tey ji communication ñu ngi koy def ñu ngi dugal lépp ay Facebook si si si canaux yi nga xam ne mën nañ ci joxe ay information yëpp ñun ñu ngi ci di joxe information yi peut-être xëy na daf cee am ñoo xam ne bëgguñu gis wala ñu dégg li nga xam ne moom la monsieur le maire di nekk di réaliser ci Kaolack ndaxte tali pharmacie Mboose ñetti guy boobu ah ci suñu réalisation la bokku de te yaakaar naa ne loolu tamit euh, def def la ci Kaolack parce que au moins ki nga xam ne mu ngi jéem di def dara moo gën ki nga xam ne dafa toog te deful dara budget maire tamit fiñ ko yóbbu xam nga budget moom da ngay da ngay prévoir rek ne bëgg naa lii après nga uti waaw ci loolu tamit comme moom am na euh, yaatu te maanaam xel mu yaatu mi nga xam ne tey fe fi mu ko fekkoon mu daan nekk ci ay 4 milliards et quelque mu yóbbu ko ba 7 milliards donc loolu tamit yokkute la te loolu moo ñu poussé ba nga xam ne mën nañoo jënd engins yi nga xam ne moom lañ jënd parce que tey jii boo boo voté benn affaire te nekkut sa poche tamit mënoo ko jënd ndaxte loolu maanaam bëgg naa lii ci at mii léegi nag nan laay def dama koy uti parce que municipalité noonu lay doxee nekku ne nee nañ budget 7 milliards 7 milliards yaa ngi tëdd fële dañ koy wuti ah comme am nañ maire bi nga xam ne nag tey am na xelum wuti ko wala mën-mënu wuti ko ba tey mën ñoo taxawalal engins yu mel nii te mosuñ ko am loolu tamit ci bilan bi la bokk buñ buñ ko xeet kaw ko waaye nag dama leen di wax ñu xippi seen bët yi xool parce que am na si ñoo xam ne dañoo maanaam politique bi moo leen yóbbaale ba nga xam ne ak tamit nag ah wax dëgg yàlla nga nga nga fekk fi koo xam ne nag parti pouvoir la nga ñëw mosoo politique nga ñëw am fi pourcentage bi nga am nii loolu tamit du yomb de. donc nee nga nee nga nee nga politique moo ko lal diggante Kaolack ak Serigne Mboup mais est-ce que jàppoon aussi tamit ci njëlbeen ni nga xam ne Serigne Mboup mu ngi ko doon doxal diggante mag Kaolack Kouaye wala su diggante mag ñenn ñi nga xam ne attaqué nañ ko wala am nañu moom ak problème ci côté mairie bi euh, jëm ci kujje gi yaa ngi dégg parce que dégg nañ fi ay problème euh, mu indi fi ay xaj wàccee fi créé fi ay boucan ñu fi porté plainte yóbbu est-ce que loolu jàppoo ni dafa créer benn tension diggante Kaolackois yi wala soit dafa créer benn vague entre ñi nga xam ne ñooy kuje gi ñu mun ko véhiculer mu nekk benn mu créer benn benn benn benn noon entre Kaolackois yi ak ak Serigne Mboup non Serigne Mboup amul noonu xam nga tey nit boo ko yilifee mu lay woon carrément que ne yilifoo ma ah mënoo koo dóor mënoo koo def dara ah da ngay ut loo xam ne mën na mën na jëflanteeg moom loolu moo waraloon xaj yi parce que mënut a xeex sëriñ du taxaw fii di xeex ñun tamit. mais xaj yi c'est la première fois ci histoire bu mairie. Ah. maire bu fi ñëw Kaolack indi fi ay xaj. waaw mais tamit sëriñ li ko dal c'est la première fois ci histoire bu mairie maanaam lu am bees bees rek dina am solution bu bees bu génn parce que tamit moom niñ ko fi def moom lañ ko fi njëkk a def ndax maire yu ne ne nañ fi ñun nekkoon nañ fi di politique mais peut-être maire yi fi doon nekk duñ leen sax xam. duñu xam sax lan lañ fiy def duñu xam lan la ñuy def suñu alal duñu xam lan la ñuy def ci mairie bi ñun mairie boo fi duggee ut sa kayit am nga ko yóbbu amoo ko dem nga kon donc tey buñ ñëwee ba ba ba mën a yee nit ñi ba mën a leen a xippiloo seen bët ñooñu mu yee ba xippiloo leen seen bët bëgg koo attaqué ah tamit dafay seet arme bi nga xam ne moom la mën a def pour génn ci loolu gisoo tey loolu jeex na ñu ngi koy nettali mais jubluwu si woon pour soxor ci Kaolack waaye ndax ku ne xam na ne sëriñ am na yéene ci Kaolack juddoo na fi mais jàngi ji ñib si xelam jox ko fam juddoo woon ne na fa dellu pour nekk fa maire mën a mën a dimbale waa dëkk ba kon kooku bëgg na dëkk bi te tamit sëriñ bëggut tamit joteeg benn Kaolack waa dara ndax ak lépp luñ mën a wax sëriñ nitu jàmm la nit ku baax la bëriwul fitna mais nit nag loo dal dal dal am na yenn attaques yoo xam tam buñ la koy attaqué il faut nga ut tamit loo xam ne moom ngay wéeroo ndax noonu rek la mën a def waaw. ok gis nañu aussi tamit fan yi ñu nemmeeku ci ay réalisation yi nga xamante ne mu ngi koy def tey euh, lu ci mel ni ay investissement tey lu tol ni ci six cent millions ñu dégg ko mu wax ko donc jënd ko ci ay matériel yaa ngi dégg ut ay chargeur compacteur gradeur ay corbeillard ut ay pick-up yaa ngi dégg donc deux camions benn mu ngi ci mairie bi jëpp a ngi koy gis temps yi passé mu mel ni Serigne léegi dafa engagé wu carrément ci li nga xam ne mooy travaux publics Kaolack yi nga xamante ne tey bokkoon na ci li gënoon tax te soxaloon na Kaolack waaye bokkoon li gënoon tax ñu ànd ak moom fatel ko muy Kaolack koo waxoon dañ naan Kaolack amul changement depuis des années Kaolack bi mu nekkee Kaolack ba léegi même tali même kii ak yooyu mais gis nañ benn engagement boo xam ne fan yi néew Serigne jël na ko donc léegi euh, euh, euh, est-ce que jàpp nga ni carrément jafe-jafe yi nga xamante ni ci wàllu infrastructure ak tali yoon yi voies yi ak yooyu donc di ci yëngatu carrément. non mais loolu nekkut nee naa la nekkut loo xam ne pour lu ren la maanaam budget bi biñ ko biñ ko biñ ko vote pour ñu valider ko rek problème la da ngay jaabante dugg génn dem muy wëññeeku ba ñu ne présidence lañ ko war a valider loolu tamit il a ñu def point de presse pour ko le président de la république sortant mën ñoo dégg ba wuyuñu ba ba mun cee def ay jéego kon loolu nekkul loo xam ne tey la ko xalaat lu yàgg la dañ ciy door a jot tey kon loolu lay won ne moom liggéeykat la parce chaque jour day booster di foncer ci loo xam ne tey jii njëriñu Kaolack lay doon li ma wax rek xëy na Kaolack ñoo yàkkamti mais bu buñ defee ndànk dinañ xam ne lom l'idéal lañ dajal te lom l'idéal see Serigne Mboup parce que jàppoo am na sénégale yi Kaolack yi jàpp ni Serigne soo gisee mu tàmbali di wàcc sur le terrain di liggéey ak yooyu dafa bëggaat deuxième mandat te déggoon nañ ci ay vidéo yoo xamante ne annoncé woon na carrément ne bii soo moytuwul en tout cas précisé wul woon ci ci ci annonce bi mais wax na ci ay waxam ne soo moytuwul fii lay yemale affaire yi tant gis nañu taxawaay bi nga xamante ne am na ko waxul communiqué wul mais acte yi ak taxawaay bi dafay wane Serigne dafa bëgg a deuxième mandat fii comme vision bi nga xamante ne nit waxoon na ko ci bi muy proposé Kaolack est-ce que jàpp nga ni ak fii situation Kaolack toll actuellement donc dana yomb ak aussi su demee donc lan mooy war a mën a tax confiance ñëwaat ak diggante sëriñ ak Kaolack waay ba nga xamante ne danañ ko joxaat bopp et puis falaat ko comme ni ko waxee nee nga liggéeykat la. Mm-hmm. waaw sëriñ euh, lim wax xëy na nit ñee ko déglu bu baax mais leer na dafa ne soo moytu duma dem mais xam naa ne. résultat bi may def ci Kaolack mooy tax Kaolack waaye tàllal ma seen loxo ne naa ñëwaat kon donc maanaam seriñ ñun sax duñ ko bàyyi mu dem te loolu leer na bu ko Kaolack waaye demande waatee dañuy wañaat loxoom mu ñëwaat te Kaolack waaye buñ ko soxlaa xam naa ne lépp lu mu jàpp dana ko bàyyi ndax Kaolack moo koy jaral lan lan mooy tax Kaolack waaye soxlawaat ko. waaw li muy def nii rek parce que comme liggéeykat lañ bëgg te yaakaar boobu lañ amoon ci moom du tas seen yaakaar dafay def résultat boo xam ne tey jii ci Kaolack te mu ngi ci yoon bi boo xam ne mooy tax Kaolack waaye yëpp taxaw ne ko ñëwal dolli ñu. gisoo ni gisoo ni ak deux ans yi c'est pas trop tard. non non c'est pas trop tard fii rien n'est liggéey moom. soo munee eh, abattre li nga xam ne moom nga tàmbali rek nga continuer rek def muy gën a baax rek ah dañuy xam ne bu ñu la bàyyee nga yeggali la nga tàmbali rek parce que fii moom munoo ñëw toog rek defandoor lépp à la fois euh, il faut soit yaay continuer àggali wala keneen ñëw continuer àggali rek te incha allah kaw la ko waaye ñoo koy demande mu ñëw àggali li nga xam ne moom la tàmbali Euh, nen nañ bëgg nañ la laaj it euh, ci cent jours yi nga xamante ne ni gouvernement bu bees bi def na ko fi yow nga bokk ci kuje gi mën naa ko ni parce que coalition ànd nawle amul fenn fu ñu fësalee ne ñu ngi ci euh, ci coalition présidentielle tey mën naa la jàppee comme kuje politique. tey sooy def jàngat par rapport ak li nga xamante ne am na yaa ngi dégg ak résultat bi nga xam ne am na ak cent jours yi nga xamante ne ni nouveau gouvernement Diomaye Sonko bi def nañ ko tey lan nga mën a mentionné lii lu baax la a ah, lii kat. des na wala lii ak nan nga ko gisee noo koy jàngatee. waa li ma jàngatee waa parce que jomaay moom ah suñ sañoon gañe ko nag suñ sañoon ñun ñu dem ca ca ca ca palais ba euh, président Sénégal parce que li ma la wax sànq rek ki ñu àndal mën na ko am na xam-xam bi mën mën na jiite Sénégal kon donc bu ko yàlla joxee ki nga xam ne moom mooy le président Jomaay ah ñu nangu ko tamit lool parce que tamit moom jeune la comme ñun te lii tamit histoire Sénégal da koy retenir ki nga xam ne tey jii peut-être député ya la maanaam ña la wër ñëpp peut-être ñoom ñoo la mag nga nekk xale mën a jiite lu toll ne Sénégal loolu tamit dina nekk loo xam ne mënuñu naqari dinañu neex parce que suñ sañoon ndaw yi occupé li nga xam ne moo ëpp ci poste de responsabilité yëpp ba nga xam ne danañ ci gis suñ bopp duñ fi toogati di xaar ñu naan xale nga ak nangam ak nangam da ngay fësal sa bopp dëggal sa bopp ba nga xam ne di nga mën a bokk ci instance yi. Euh, nan nga nan nga après. waaw 100 jours yi euh, maanaam tey 100 jours yi si ay 3 mois lay toll euh, loolu tey jii nit xanaa yaakaar naa ne jomaa yi ci ay changements la nekkoon ak ay tukki kon donc loolu tey ji sénégalais yi peut-être buñ ci nekkee di wax ku nekk nag am nga sa liberté d'expression euh, parce que fii dëkk démocratie la ku si nekk ba lu la neex mën nga ko wax mais man ci sama jàngat maanaam gaaw na daal pour ñu mën ko cee évaluer ci li nga xam ne nekk na lu toll ne Sénégal parce que Sénégal tamit nekkut loo xam ne <laughs> caaxaan na koy diriger de état si autre chose parce que tamit nekkul da ngay ñëw dugg léegi léegi rek def résultat léegi léegi mais nag ah man de kontaan naa si li nga xam ne seen doxalin la ci démarche bi nga xam ne moom la jël mais di wax jenes bi rek bu ñu yàkkamti nañ ko def ndànk may ko temps mu mën a liggéey ah su defut nag su boobaa nag tamit <laughs> niñ ko fi tegee woon rek <laughs> lañ ko fi jëlee rek indi keneen waaw. dégg naa ne ne Balde da nga am ay ambition politique ci mairie bi tey ji en tant que conseillère nekk ci mairie bi ànd ak Serigne boobu ànd nawle tey. Euh, su fekkee ne Serigne demul pour am deuxième mandat Kaolack ci élection municipale bi donc lan mooy doon sa taxawaay ak sa ambition soit da ngay dem en tant que euh, politicien wàccaat sa terrain liggéey rejoindre coalition Diomaye président wala booba c'est-à-dire nan ngay def. <laughs> waa euh, Serigne nga ne bu demut. bu demut man ma dem Serigne bu demut man ma dem. du ma rejoindre benn coalition parce que xam naa ne sëriñ moom li may wax rek mooy mooy mooy mooy mooy star bi daal ci en grosso modo parce que ñun tamit jeunesse bi war nañ bàyyi toppe bi chaque jour nga topp benn nit boo toppee ku ci mel ne sëriñ buub nag ba am yenn kii di ko xool di ko topp di ko toppandoor ah sëriñ bu demul ñu dem kon yow sa ambition ci politique mooy nekk maire Kaolack la sëriñ bu demut ma dem def nag lu ma mën nag buste dëggal sama bopp liggéey parce que doomu Kaolack laa fi laa dëkk juddoo fi yaroo fi sama extrait naissance mu ngi fii Kaolack juddoo hôpital El Hadj Ibrahima Niass bokk ci dëkk bi waaw kon am naa droit laajte meeru Kaolack bu ma ko sama morom jeunesse bi gëmalee jàppale ma ci population Kaolack jàpp ci dëggal ko du ma topp kenn bu sëriñ demee nag moom lay àndal. su sëriñ demee ma ànd sëriñ bu sëriñ demul moom day dem nga dëggal sa bopp en tout cas boobaa kon war nañ la commencé ooyee madame le maire actuellement ah, donc madam le kon donc madam le dama am benn question boo xam ne nii tey sa waa gox dañ ma ko yóbbante muy question bu am solo muy promesse électorale bi nga xamante ne nii tey àndoon nga ak sa leader Serigne Mboup ñëw ci gox bi def ko fa muy wàllum poste de santé donc gox bi gis nga ni mu toll na fay yeewoo ba pare aussi bokk na gox bu am solo ci électoralu Kaolack te bokk na liggéey nga ci. palum Serigne Mboup ci mairie bi liggéey bu ama ama ama solo Serigne xam ko reconnaître ko boppam waxal la ko Kaolack ñëpp teg ci bët tey gox bu mel noonu ngeen def fi ñetti at tey jusqu'à présent amuñu poste de santé donc ña fay yeewoo tey ji ñoom ñëpp ku ci nekk boo feebaree da ngay jéggaani di jóge gox ak gox pour jën pour dem faju ji loolu yóbbantele bi nga xam ne waa gox bi wax nañ ma ko donc loolu ban taxawaay ngeen ci am aussi ak fu ngeen ci toll aussi di la fàttali ne Serigne digoon na askan bi ne bu fa toogee woon rek nga ànd ak moom dana fal poste de santé bi lan nga ci tontu ci loolu. waaw ci côté post de santé bi xam nga sëriñ bi muy waaj nekk maire comme ni ma ko defee Daaru Salaam noonu la ko defee quartier Kaolack yëpp bépp responsable bu nekk ci quartier bu ne dalaa laaj lan nga soxla mais xam nga euh, comme ni ma ko waxee maanaam munoo xëy xëy rek régler ndoor problème mu ñëpp mais ñun ci loolu ma koy wax population Daaru Salaam di leen ne sëriñ. tàmbali na ci loolu parce que ki la ne dina la tabaxal poste de santé su la joxee site bi nga xam ne mu nekk 5000 mètres carrés mu ne poste de santé la ci préparé ah kon daanaka léegi mu wàccook yow te jox nañu loolu joxaale ay AIC bi nga xam ne amuñu woon euh, terrain de foot jox na leen fa terrain de foot daggal leen ko bi nga xam ne daa am na am na këyit yu leer yoo xam ne kenn du fa ñëw jëlee leen fa ne leen fii maa ko moom wala nangam loolu AIC Daaru Salaam ñoo ko moom commencé na ay pas ah mu ngi mu ngi mu ngi jéem ca la nga xam ne moom la promettre woon parce que lay jox terrain su la nee dinaa ko tabax boo ko mayee fii ak bu ko matalut ci bii deuxième mandat am kon mun na laa tabaxal wala ci biir kii parce que loolu yëpp man topp naa ko docteur Mbaye Guèye yóbbu naa ko ba foofu ma koy nuyu de passage moom mi nga xam ne mooy santé ndax Daaru Salaam war nañ xam ne tooguma seen mbir chaque jour maa ngi jóg lu ñu wax fii Daaru Salaam lay wax ma xàmmee quartier ba daanaka tax nañ ba ñëpp xam nañ ko fi mu toll nii ci Kaolack euh, Mbaye Gueye ñëw na fa mais lim ñu xamal mooy affaire yi pour mu defar ay poste de santé maanaam il faut district maanaam ñoom foofu la ñuy topp fi mu toll nii pour ñu mun ñoo boole ci programme bi ñooñu buñ ñu ci boolee rek pour mairie def ko après dafay yomb. mais madame le maire gisoo dafa yéex ndax santé dool na loo xamante ne lu am solo ci gox gisoo dafa yéex parce que def ngeen fi ñetti boobu léegi yéen a ngi jëm ci ñaari te te leen dese fii xaw ma da demaat du ngeen demaat mais est jàpp nga ni yi sottiwul ci ñaari yi district boobu ngay wax mën naa sotti. waaw ah mun mun nañ ñu comme mun nañ ñu programmer Euh, mun naa ne yéexut parce que quartier boo xam ne tey jii amut sax maire bu fa bëggoon a teg tànkam kon tey bu ñu amee maire boo xam ne tout le temps day dugg ci quartier bi di génn am doomu quartier ba foo xam ne tey jii teg na ko fu sori parce que sëriñ euh, sama xarit la d'abord avant politique maanaam toll nañ foo xam ne romb nañ politique fi mu toll nii ndaxte nit koo xam ne la ku ma yëg la yëg gox ba ma dëkk donte foofu dong nekk fi ci Kaolack tey bu ma defalee lii may ma site bu toll noonu kon buñ ne ma dinañ ko defar danaa ko gëm mun na nekk déwén mun na nekk déwén jeeg comme waa yàkkamti nañ ko parce que comme amu fa mais bu ba nga xamee ne amuñ suuf amuñ dara yaakaar naa boobu la doon gën a méttee suñu amee site foog naa dootuñ wax ne yàgg na parce que tey jii sit boobu euh, bu nekkee sëriñ demut tamit pour jëlaat Kaolack keneen ku ñëwaat yaakaar naa xanaa di ñu mën a bàyyi xel wala man defar ko daaru salaam laa njëkkee xool loolu nga xam ne tàmbali woon na ko fa ma continuer foofu loolu loolu mooy suñu ambition parce que quartier bi moom lañ am moom la ñuy tiitaroo rusuñoo taxaw fenn di ko tudd rusuñu faa dugal kenn rusuñoo wax waxu quartier parce que nit ki fi nga xam ne yaa fa dëkk te tànnaloo ko sa bopp yàlla moo la ko tànnal munoo def lu dul gëm ko munoo def lu dul bëgg ko te loolu mooy tax tamit nit ñi naw la te sëriñ tam mu ngi ciy jéem ay jéego avant moo falu moo ñu daan xottil kanaal yi ba tey jii nii ñu ngi ci continuer armée bi moo ko jël ren moo tax mu xaw yéex peut-être mais danañ ko gas ndax tàmbali nañ ci yeneen ko tey dinañ ñëw fépp gas ko ba mu baax otoom dugg na fa mu fay ci ay millions dugg foofu ci biir quartier bi ku ne xam na ne foofu ban la oto yu mag yi am na yenn façon oto yoo xam ne bu fa duggee muy fay chaque jour quatre cent mille loolu métti oto bi def na presque un mois et quelque chaque jour nga fay borom loolu dafa métti da daan toog heure bu ne la fay dugg kon loolu tamit loo xam ne la ah buñ buñ ko xeeb daal nañ tëye euh, maanaam dina ñëw daal monsieur le maire daal nañ xam ne bàyyi na xel quartier bi bàyyi na xel population daal. Euh, lancement bi ñu ngi ko doon def keroog Serigne taxoon moo am ay kàddu yi nga xamante ni yëkkati na ko ci ci wàllu emploi bi. ku 2100 emploi yi nga xamante day def direct ak 2200 yi nga xamante ne day def indirect donc tey ci recrutement bi mbaa. yéen a ngi sóoraale tey li nga xamante ne nii ci ci ci ci yi mu bañ nekk li nga xamante recrutement politique lay nekk parce que souvent gis nañu euh, recrutement yi yëpp ku ci nekk da ngay bu ràcc jëmale sa boor est-ce que Kaolack waay jeunesse Kaolack waay en tant que maire mën nga leen rassurer ne carrément mbir mi amul ànd nawle amul ku bokk ak sëriñ amul ku bokkut ak sëriñ képp koo xamante ne Kaolack waa nga soo jaaree ci norme yi da nga mën a jot li nga xamante ne mooy sa emploi nga liggéey normal waa en tant que jeune nekk conseillère municipale euh, jiite commission bi nga xam ne euh, mooy euh, commission jeunesse et emploi ah loolu kon dinaa mën a rassurer jeunesse Kaolack que ne ah duñ ko def parce que ñun jeunesse bi yëpp lañ fi toogal du jeunesse ànd nawle kese nit nag xëy na ña nga xam ne ñoom ñoo ñoom nga doon àndal politique mënul ñàkk mais di dinaa leen rassurer que ne jeunesse bi yëpp ñoom ñoo ko moom képp ki nga xam ne ndax sëriñ moom liggéeyul sax noonu compétence lay liggéeyee maanaam képp koo xam ne sa xam-xam ak sa mën-mën may na la nga mën a liggéey doomu Textica parce que waxaguñ ci affaire yi pour jël nit ñeek wala nan lay demee procédure yooyu duggaguñ ci mais dinañ leen rassurer que ne dinañ dinañ jël képp koo xam ne am nga profilu xëy na dugg doomu Textica te du nekk loo xam ne ay par parparloo lay doon wala affaire politique lay doon parce que ñun gëmuñ loolu ñun ñëpp ay ay ay ñun ay femme de développement lañ sëriñ tamit homme de développement la te ki nga xam ne pour développement rek a ko ñor du am xàjj du am seet du am ku muy tànn di bëgg wala ku muy tànn di bañ mbokki xaritu internet yi doon sekkal wax bi mooy Néné Banlé tey mu nekk suñu premier numéro ci édition spéciale bi nga xam ne tey émission lu bees la fii ci Senclic TV ñu jagleel ko nekk secteur bu mun a nekk di ci évoluer di ci def lu am solo ñun danañ la fekk fi nga nekk waxtaan ak yow seen mbokk seen xarit Souleymane Jules Ba moo nekkoon ci présentation bi ci cadreur bi mu nekk Moustapha Mbaye suma grand euh, Néné Baldé nag ku ne xam na ko nekk conseillère à la mairie nekk femme bu brave di jàmbaar nekk femme d'affaires nekk femme de développement aussi ci li nga xam ne mooy social rawatina goxam bi mu dëkk muy Daaru Salaam donc waa Daaru Salaam jàppale leen ko dimbale leen ko ndax nit la koo xam ne nii fu mu dem Daaru Salaam lay représenté dégg ngeen li wax ci sante bi kon madame le maire li ma lay dénk mooy sante nekk na loo xamante ne ni euh, lu mënul xaar la donc noo mën a booster en tant que conseiller wax ak Serigne su jaree nga yuux gëdd ko dóor ci table bi def ko ndax gox bi nekk na loo xamante ni vraiment am nañu yaakaar ci loolu ndax loolu nekk na aussi tamit lu li nga xamante lu am solo solo solo lu ñuy xaar ci sëriñ bu donc encore une fois ma bàyyi la nga tàggoog suñu internautes yi yaa ngi dégg digg daje ba beneen yoon incha allah. waaw Gilles maa ngi eh, tàggoo yaakaar naa eh, ñu ngi toll ci fin wu waxtaan bi ah ma may am contentement lool accueillir leen fii eh, di rafetlu bu baax a baax seen initiative bi. di leen ñaanal seen site bi yàll na àgg fu sore sore sori yàlla na li ngeen ci bëgg yëpp ngeen am ko na ngeen dem ba am ci ay tele yi tele yi télé waaw ñu àddina bi yëpp di leen di suivre di ko seetaan ma leen di ñaanal loolu di wax rek comme li nga wax Daaru Salaam moom moom rek lañ am de passage may nuyu ñoom Binta jàlloo ñoom ñi nga xam ne ñoom laay àndal foofu ci politique bi lamin Sène ndey mosaan kamara ñoom Koumba Loum di nuyu waa quartier Daaru Salaam bi yëpp euh, képp koo xam ne yaa ngi yeewoo Daaru Salaam rek maa ngi lay nuyu di la jaajëfal di leen wax rek ne bu leen yàkkamti monsieur le maire dina ñëw comme ni ko euh, Jules waxee sante moom ku nekk xam na ne mënta xaar mais incha allah dinañ si def suñ kéemtalaay kattan di leen wax rek nag ne am ngeen candidat seen doomu gox candidat la bu sëriñ buub demut bu dee sëriñ buub day dem nag dañuy takkaayuwaat jàppale ko ba nga xam ne dina jëlaat li nga xam ne mooy mairie Kaolack te loolu laa koy conseillé mu ñëwaat ñëw ci ñëw Kaolack waaye tànnaat ko mu ñëw taxaw euh, ci mairie bi àggali li nga xam ne mooy mbébétam fii ci Kaolack di di nuyu ñëpp di nuyu jaabi mi nga xam ne moom a dalal ci bureau bu yanj bii ah. <laughs> di ko nuyu bu baax a baax di ko jaajëfal ne sama rakk ñu ngi toog fii moom ak ami waaw di ko jaajëfal bu baax Euh, bu ko neexoon ne damay liggéey aw ma wala demal fële kon kon it duma ci mën dara maa ngi koy nuyu bu baax a baax di nuyu waa gox ba yëpp di la mënuma am euh, maanaam moo yu may utiliser pour pour remercier la parce en fait lii tamit yow it ndaw nga euh, comme dëkk Daaru Salaam man ak yow ñu bokk fu ñu dëkk donc kon ñun ñoo bokkandoor combat bi ñuy xeex àndandoor si yow it nga nekk jàmbaar nekk un leader nekk liggéeykat ah di nuyu sama employé yi nag ñi nga xam ne damaa yore entreprise bu ñuy wax kër yaay awa tuddee ko sama yaay publicité bi damay fay <laughs> ah ci man du ma politicien kese de damay liggéey chef d' entreprise laa bu tudd kër yaay awa di yëngatu ci affaire yi agro agroalimentaire en fait dinaa leen jox ci cere jeeg caagiri yi maa leen ko dig dinaa leen ko ambuleel indil leen ko <laughs> incha allah